salaamaaleykum amis téléspectateurs salaamaaleykum yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo Equivox TV bienvenue dans le journal de l'arène euh, Babacar maa ngi lay ziar. maa lay fay Abdou maa ngi lay delloo ziar. naka aljuma ji. waaw sant nañu yàlla bu baax a baax. alhamdulilah. ana aw ñaareel. ñoom ñëpp a ngi si jàmm ci ci ah, allah ah, kon su ko defee ñu dem seetaani revue daal di ñëwaat ak Babacar. kon jàmmante nañu ah oui bon saf la asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 11 juin 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di suñu lamb tey xëta mu njëkk la mu xëy fesal lenn la combat royal bi nga xam ne nii daal moom moo war a am le 25 décembre war a dox ci diggante Modou Lo ak ka nga xam ne ni moom moo di Ama Baldé yëglikaay bi ne dey cadeau la boo xam ne ni loo ci mën a dégg cadeau empoisonné daal la ko sunu lamb jàppee moom sunu lamb moo xëy tey gise noonu boobu combat royal mu war a dox ci doome parcelle ji di Modou Lo ak doomi Pikine ji nga xam ne nii moom moo de Ama Baldé jeneen doomi Pikine joo xam ne nii moom fa ko gaay doon xaar wala ñu ko doon yaakaar mu wax ca daa mel ni tëb na foofu wala bëtam romb na loola muy soq mi daan gàmmu gay bërki dem ñu ngi doon wax digganteem ak jén kayre ak yu mel ne ki noonu ba ensemble sax génn di ko wax waaye soq moom daa mel ni romb na jén kayre ay bëtam daal ne na fa mu tege bokk na ci combat yii Sa Thiès Moussa Ndoye soq ne na ko fa daan bëgg naa la ak ko fa daanu rëg guy gi soq ne na ko daan ak ku daanu bëgg naa la lagros ama neex itam ne na ko daan ak ku daanu pare naa ngir jàmmaarloo ak yow parce que soq jàpp na ne man soq fi ma toll ni tey ci yëpp ne na ku mu ci mën a doon bu fekkente ne mënumaa bëri ak ñoom wala mu wala boog mënuma leen a daan bu keroogee kay tekki sama ngem te génn laa war a def loolu waxi soq la ñeneen ñoo xam ne ni wala keneen koo xam ne ni xëy na di wax ci suñu làmb ñu koy wax ma Baye Mandiaye ma Mandiaye nag moom daa ñëw ci combat bi nga xam ne mooy bu tar bi nar a am le 19 juin war a dox ci diggante Franc ak Tyson 2 wax na ca ñaari mbëri ne bu dee Franc la moom xam na ni muy utiliser ay mbiram maanaam ay point daal xam na wala ay pion na mu koy tege ak na mu koy placer ci biir jeu ba génna ca waaye na Tyson 2 itam nekk na mbër moo xam ne day maanaam seddul ci kanam ci kenn ci ay bëti jàmbur wala boog moom Tyson 2 daal nekk na mbër moo xam ne ku jara bàyyi xel la bàyyi ma njaay moom moo gise nu mel ni ki noonu kenn koo xam ne nii tamit boole na ñaari mbër di dimanche ji jëm la treize muy jamaïcain mel ni ki nag diggante France ak Leket Baara tamit yëg likaay xëy na tey ñëwal ñu ci xamal ñu ne daal règlement de boo koy wër dëgg dëgg dëgg ñëwal ci boobu combat ci diggante Banjul ak fa nga xam ne nii moom moo di Baara loolu nag ci dimanche ji jëm lay amee fa nga xam ne nii moom moo da ca Gambia sunu làmb xëy tey dikkal ñu ci loolu kenn koo xam ne ne ni moom maanaam ci wàllum communication ku ci mag mag la ñu naan ko Masib seen Masib nag moom Masib nag moom que mu xëy di wax moom mooy Aziz Ndiaye daal ma ngeen xam la xëy di wax ne na Aziz Ndiaye soo bëggee dégg-dëgg moom li am ba des daal Masib Sène daa jàpp ne Aziz sportif verti maanaam nit la koo xam ne daal ci wàllum sport ah daa mel ni kii daal après yu la ca wala book maanaam lu mu bëgg-bëggal boppam la yëglikaay baa xëy tey ñëw dalal ko yeneen combat yoo xam ne tamit fii lay amee ci ndakaaru njaay ci weekend bii nu jëm wala dimanche ji bokk na ci taqe école de lutte Lansar ak ka nga xam ne moo di booy puy école de lutte Seex Mbabba mel nag foofu moom Assane Ndiaye moo fa jaar mbaytin nag moom moo xëy tey di décortiquer boobu combat nga xam ne dimanche la nar am keneen koo xam ne mu ngay wax ca beneen combat muy Modou Fall moom itam combat ba mu xëy di wax te mu war a ci dimanche ji ca Iba Mar Diop moom moom war a dox ci diggante nga xam ne ni moom moo di Bulldozer ak Gin bu Yoff mel ni kon daal weekend bi itam fii ci ndakaaru ndakaaru moom loo ci mën a dégg moom nar naa saf lool lool lool maanaam lamb ji daal nar na fee jax keneen koo xam ne nii itam nar naa jaxal ci la nga xam ne ni moom moo di mois de juillet muy le trois juillet muy may yi Yékini ak combat nga ba nga xam ne ni tëgg na ko muy ndongoloo ak ki nga xam ne nii moom moo di Cheikh Tidiane Niang moom nag boo bëggee dégg dëgg le 20 juin daal la tëggoon boobu combat waaye fi mu nii daal li am des moom da aj ba le 3 juillet moom ma nga xam ne ni moom mooy Mbaye Yékini daal lu mel noonu la def yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu moom sunu làmb leneen loo xam ne ni wala beneen yëglikaay boo xam ne ni wala boog ñu des sunu làmb fan fay lañ tax ñu des nag ki nga xam ne moom moo di Paala Diop ak Pape Diop Boston ak ñoom Mansour Diop seen way jur wu jigéen daal lanu yëglikaay bi xëy tey xamal ñu ne daal génn àddina démb ci alxames ji fa nga xam ne ni moom moo di ca Pikine ñu doon ko wax ajaratu Nogay Mbay yëglikaay bi xëy na tey ñëwal ñu ci mu amoon ci ay at nag lu toll ci juróom-ñeent fukki at ak ñaar maanaam 92 ans daal dundu na ko ma mel ni koon daal sunu maam jooju génn na àddina yëglikaay bi moo xëy tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu ba tey bu nu continuer dem fa nga xam ne moo di record kan fay fekk moo di Eumeu Sène Eumeu nag moom ku ne xam na ne fan yi ba kombaam ak ka nga xam ne ni moom moo di Bombardier taxawaate ak Balla gay ama Sène la mu def mooy coow la def wutale réewum Gambia Eumeu nag ba mu demee gàmbi daal la mu xamal gàmbiyee daal dañ leen waaj leen te xaar ma sama victoire fii ci Gambia laa ko fas yéene feete ji wala boog fi laa koy feetee si record a xëy tey di nu wax lu mel ni ki noonu ba tey moom yëglikaay bi di record mu nu xëy di nu xamal ne daal Assane Ndiaye ah ñi ko sowe daal moom moo di Boy Pouy ca Seex Mbaba taqe ca Lansar ndax ñoo nar a bëri grand combat bi ginnaaw général Malick ma ko waroon a bëre ak Fils de Balla te Fils de Balla ku ne xam na ne daa mujj amee la nga xam ne nii moom moo di blessure record a xëy tey ñëw dinu wax lu mel ne ki noonu keneen koo xam ne ni tamit Iba Mar la fas yéenee bëree ak baay ma Mandiaye muy. ka nga xam ne moom moo di agogo ma nekk saak sàkku xam-xam bu Birahim Ndiaye le 10 juillet la ñu record xëy tey xamal ñu lu mel ni ki noonu tolak 2021 daa mel ni ki nag Sénégal moo ko fas yéenee dalal le cinq jàpp le 7 novembre fii nga xam ne ni daal moom moo di ci réew mi jax moom yëglikaay bi di record mu nu xëy xamal ne daal maanaam reporté na làmbam da nga xam ne moom la waroon a def le 20 juin fa nga xam ne nii moom moo di ca Pout muy lit simple bu nu continuer dem Equivox kan fay fekk moom moom Fourier bu Grand Yoff Fourier nag moom bàyyi ma si siñor daal la xëy dem di ko tontu Fourier daal lam ko xamal ne na comme moom daa jàpp ne bu arbitre soufflé daf may jàpp duma ma daan ma wala buñ bëree mu daan ma ne na maa ngi koy nekk di te buñ ca yeggee dana xam ne Grand Yoff moom ngaa ka dëkku fi nii ab ragal ma ne ko loo xam ci bàyyi ma si siñor mu ne xanaa waxi dof kese laa xam ci moom mu di ko wax mel ni kon daal démb open presse Fourier ba yëngu woon na lool ndax Zarko ñëwoon na teew mobile ak mbëri Grand Yoff yépp maanaam daal dikkoon nañu jàppale si ko loola mu nga wax fa nga xam ne ni moom moo di ca biir Equivox ba tey ci biir Equivox leneen lu fa nekk moom moo di maanaam le treize la war a ca Gambia war dox ci diggante France ak Leket seen dernière face à face daal mu nga fa nga xam ne ni tamit moom moo di ca fa nga xam ne moom moo di ca Equivox TV waaye la ñuy wax mooy sunu maam jooju. Ajaa Nogoy Mbay di yaayu Pape job Boston champion d'Afrique ba ak Paala Diop la Grand Manatse ak Mansour Diop ca Italie seen wayjur wu jigéen woowu yal na ko yàlla yërëm te xaaree ko aljana barke yonent bi sallallahu alayhi ndax nag lu la waay waxadi waxadi ku ne dégg na turu Pape Diop Boston ci làmb tamitam la ko waral mooy la mu ca def yemu ca ci réew mi de ba au niveau international gàddu na ay médailles nekk champion d'Afrique dem ay Jeux olympiques kon defe naa kooku tey bu way juróom génnee àddina jar na nag ñu rendre ko hommage ñaanal wu salaamaaleykum amis téléspectateurs salaamaaleykum yéen ñi nga xamante ni yéen a safo Equivox TV bienvenue dans le journal de la euh, Babacar maa ngi lay ziar maa ngi lay fay Abdou maa ngi lay delloo ziar naka aljuma ji waaw sant nañu yàlla bu baax a baax alhamdulilah ana aw ñaareel ñoom ñëpp a ngi si ci jàmm ah macha allah ah, kon su ko defee ñu dem seetaan revue daal di ñëwaat ak Babacar Euh, Babacar gannaaw ba ñu nuyoo téléspectateurs yi tey sunu làmbu daal di xëy ak ñun ci xëtam bu njëkk le combat royal entre Modou Lo ak ki nga xamante ni moo di Ama Baldé un cadeau empoisonné le 25 décembre. waaw xam naa daal euh, loo si mën a dégg cadeau la <laughs> parce que nag ku def ku fête sa 24 décembre. Mhm. bët set ñu la combat Modou Lo Ama Baldé. Mhm. ah indil nañ la cadeau bu neex a ne. doy waar empoisonné bi nag bon xëy na fi yëglikaay bi jàppee xalaate mooy parce que du nekk lu neex. Mhm. bés boobu mhm. li tax du neex mooy ñoom ñaari mbër yi ko seq tax mhm. parce que ku ci ne da nga am ginnaaw mhm. ndax ku ne xam ne nekk na xale boo xam ne ni wax dëgg yàlla tey fi mu ñëw si làmb fullaam faydaam ak dogom moo ko fi indi xëyul rek taxaw ne Falaye suma papa Zil Baldé suma mag wala nangam sangam non non da caa boole liggéey di jàng ba tey mu wane ci làmb lu ko may méritu mhm. mu bëri ak le roi des arènes Modou Lo mhm. kon yaakaar naa ne mbër mu mel noonu Pikine yëpp topp ci ginnaawam mhm. ak yeneen gox yu sax Pikine bëgg ko di ko supporter defe naa ne tey mu jëm ci combat boo xam ne c'est la première fois mu bëri ko ci carrière am te bi muy takk ngem loolu la bëggoon nekk roi des arènes tey mu am occasion bu bëri roi euh, roi des arènes ak Modou yaakaar naa ne kon ama bu liggéeyu kon loolu du am kon Abdou daal tëdd du joxe dara njëriñ day feeñ loolu mooy tey li am ci combat moo tax combat bi manta neex wala muy yomb bu dee si côté Modou Lo la tamit kazalika naka noonu moo jiitu avance yi lamba mais boo xoolee ñoom ñaar bëri nañ ba pat ba ba Modou daan ko ca parce loolu li muy wane nag mooy gani ba parce que rek génération yi benn la ñoo bokk génération mhm. yaa ngi dégg mais Modou itam comme li mu waxoon keroog rek ci fullaam faydaam ak jom ak bëgg li xam li mu bëgg moo ko fii parce que boo ko dee xool ci dayoo mbër maanaam ni mbër war a toll ci taxawaay ak ci guddaay ak yooyu comme ni ñuy xamee mbër mhm. yaa ngi dégg Modou gis ci moom loolu mhm. mais nag du ñëw ci làmb itam nga ne Modou entraîné mhm. bi nga xam ne wax dëgg yàlla li li olof naan loo bañ bañ lëkk da nga ko waxal guddi noppam ak mën a dawam mbër am fulla la neex a faral di ngi dégg muy koo xam ne itam yaakaar naa tey bu demee ba nekk roi des arènes parmi les VIP yi nekk si làmb ji ak ak les autres lutteurs ça moo lay wan ne moom itam am na ñafe bu méttee méttee xare bu méttee méttee kon moo lay wan ne foofu tamit du yomb. moo tax combat bi nekk combat boo ne bu nar a metti lay doon. Mm-hmm. te parcelle itam topp ci ginnaaw am comme ni ma ko waxee ci ama mm-hmm. yeneen gox moom Moodu. Mm-hmm. muy combat boo xam ne daal lig ni ko lay daal lañuy ñaan yàlla moo ñu yegg si bés boobu ak jàmm. yàlla waaye ki nga xamante ni moo di sox moom day tey dafa ñëw indi indi indi indi ñëw ak euh, ton bu dëgër dëgër nee ki nga xamante ni moo di Sa Thiès Moussa Ndoye rëg-rëg wala guy gi ñoom daal ku ci daan ku nekk soxla na la nee bu fekkee mënu leen a mënut euh, a dëgg parce que li tax ma ne wax na dëgg xale la. Mhm. parce que tamit am na lu mu bëgg li ma la wax rek maanaam bo bo bo boo boo demee maanaam olof ne na kuy dee ci àll na la gaynde rey. dëgg la ça veut dire que soxu tey xale la boo xam ne wax dëgg yàlla popularité am biir Pikine day su ko werante mhm. wala si làmb mhm. en général tey laay yàggut si làmba yaa ngi dégg ak lu mu wane dimanche diggante ak gàmmu gi ñu bëri amoon leen lu ñu xalaatoon mais gis nga soq na mu dissuése ba gi kon bu nag tey mu taxaw ne diggante Sa Thiès Moussa Ndoye rëg-rëg guy gi lagros ama neex ku ci daan ak ku ci daanu bëgg naa la ça veut dire que kon moom am na lu mu bëgg am na fu mu bëgg a dem te itam loolu mu wax laa d'accord maanaam bu fekkente ne moom tey fi mu toll nii jàpp na ne ñooñu warta mën a bëri ak ñoom wala mhm. wala boog waru a daan mhm. kon bu yeboo mu bàyyi lam mhm. waaye nag it pour mu bëri ak ñoom actuellement xam naa du yomb parce que pour ñooñu nangu bëri ak moom dina xaw a jafe tuuti waaye nag euh, li la waxoon rek ni ma ko gisee kër mu ñëwee ko ci làmb ji am ndam ak mbooloo mi ko topp bu continuer loolu beneen komba ah. ah waxuma la euh, di nga gis ku ñu bëri ñu bëgg a bëri ak soq parce que itam nag macha allah mbër la te itam wane na ko keroog dimanche. ah boo doonee xale bu am jom Babacar. waaw di entraîner. waaw am ñu topp sa ginnaaw yaakaar la. waaw yaakaar naa ni wax dëgg yàlla. li nga mën a def rek mooy. viser ci kaw. bien sûr mooy yoon waaw waaw mooy yoon nag. waaye Babacar ñu dem ci daj dëpp gi nga xamante ni incha allah moo war a am le 19 juin fële ci arène nationale. Mhm. Euh, Baye Ndiaye Baye Ma mhm. ñëw na sur le choc ki nga xamante ni moo war am diggante Tyson ak Franc 2 ak Franc Tyson 2 astafurla ak Franc. Mhm. nee na Franc c'est utiliser ses pions. waaye Tyson 2 tamit n'a pas froid aux yeux. waaw. li ma xam daal mooy. Mm. comme loolu mu wax Franc. Mm-hmm. ay pions xam na mu koy placer. mu koy placer pour def jeu am. Mm-hmm. waaye Tyson 2 tamit comme li ma la wax bu nee ci géew. Mm-hmm. ay bëtam du sedd de ngay dajeel de mbër nga fay fekk. Bakar combat bi dina yéeme kon le 19 juin li ma la mën a yëgal mooy. fi mu nekk nii ah. ku nekk mën nga wax li nga xalaat wax li nga yaakaar wax li nga xam si ñoom ñaar waaye jàppal ne ñoom ñaar ku ci ne mën nga daan sa morom waaye nag am na ku ci ne avantage bu am si combat bi ku ci xam say avantage nag wala sa encadrement xam ko moytu loola la nga xam ne moom mooy fooru sa adversaire mm-hmm. nga utiliser say avantage mm-hmm. bu yàlla mën na def nga am ci ndam parce que tamit lu la waay mënti wax mooy mbër lamb am xel a koy def mm-hmm. yaa ngi dégg Tyson noonu na maanaam intelligence en mouvement la mhm. maanaam yeew xel xel la moo ko mooy bëri mhm. du xeexu mbedd mhm. ça veut dire tey Franc li mu ko leer na li Tyson 2 da koo mane su nawee boppam ba fekk Tyson 2 ci loolu mën naa lu ko naqari Franc eh, Tyson 2 tamit su su ko leer na lii Franc forum la mu mu mu bàyyi moom la mu mën a ba fekk ko ca la kee mane su ko rogee mën na lu ko naqari kon naxante lay doon jéem a at jaar sa adversaire fi nga xam ne foore wu fa pour mën ko daan te xalaat naa ne ku ci njëkk ci loolu si ñoom ñaar da nga daan sa adversaire ah incha allah waaw ah. ñu yónni yàgg comme ni nga koy waxee rek waaw du mën a ñàkk <laughs> jamaïcain sur son événement de dimanche mm-hmm. moom jamaïcain ki nga xamante ni moo di France ak Leggett un règlement de compte waaw loolu am na parce que man ma nekkoon Gambie maa xulle mais xam nañu règlement de compte la mm-hmm. defe naa kere boo ñëwee Sénégal bi fañ doon hôtel bañ doon présenté ñaari mbër yi mm-hmm. entrée payante la woon te dañoo fay dugg pour seetaan face à face France ak Leggett Baar biir Gambie wan mbër yooyu tey boo leen dee xool seen dayo par rapport ak Sénégal mhm. da ngay am Modou Lo ak Balla Gaye mhm. noonu la ñu mel ci Gambie ci Gambie dëgg la France mu ngi dëkk biir Banjul mhm. le leket mu ngi dëkk Baara maanaam géej gi moo leen séparé yaa ngi dégg kon combat combat derby lay doon derby bu métte métte <laughs> métti lay Real sax ñaari mbër yi seen phase avance Jamaïque njëkk na ko tëgg mu yàqu yàlla defaat mu tëggaat ko moom pour tëgg seen combat sax dafa jafe mhm. mais jamaykee réussir na ba taxawal combat bi réussir ba ñu def face à face mhm. li ci des mooy jaaxaaroo le treize yàlla nañ ci yegg ak jàmm ñu bëre que le mhm. waaye loolu la waaye mën a wax moom règlement de compte pire mooy combat France ak Leket Baara Babacar da ngaa wax lu am solo ci li nga xamante ni moo di face à face woon Babacar est-ce jot tamit ici au Sénégal face bon am na loo xam ne soo ko defee ni nga ko war a defee àndale ko la mu war a àndal mhm. su la neexee def ko ah. waaw parce que danga nga koy booleeg la mu war a àndal mhm. def ko fa nga ko war a defee def lu war a tax nit ña mën a dugg ñëw fay bu ko keroogee parce que jamaykay fa mu ko defee hôtel de luxe ah. mhm. xam ne lu may wax hôtel bu hôtel bu seer la moom la dem jël fay est-ce que dégg organiser teg lu teg defar kii am plate bu affaire bu rafet bu riche waaw nit ñi ku ñëw solo ba rafet dagg sa ticket ñëw dugg toog bu la neexee jënd sa boisson bu sedd naan bu la neexee jënd sa ndox naan bu la neexee ut sa euh, sandwich wala yaa xam loo bëgg a lekk lekk toog am sa face à face mu ñu si nekk ay noobul lañ voilà da nga war a dugg waaw ngi koy vraiment di ko wax mention spéciale parce que xale la te itam mu ngi jéem a percé di ñëw mhm. te incha allahu rabbi am naa yàqi ne dina yàgg si mhm. na gën a am humilité rek comme li ma koy wax incha allah suma rakk la suma xarit la incha allah mhm. contribution du doyen Mayib Sène Aziz Ndiaye Mayib Majib Sène ah Aziz Ndiaye un waaw waaw Berthier day xaw ma xam nga tubaab moom xam naa ne man ki mu ci waaye xam naa daal li mu bëgg a ci li ma yaakaar moom <laughs> waaw Aziz daal sportif la boo xam ne daal ah euh, ku bugg sport la mhm. ku koy dund la mhm. ndax it wax dëgg yàlla ban ko xamee ñun si làmb la ñu xëyee xam Aziz Ndiaye mhm. en tant que promoteur te lu jiitu loolu balaa moo nekk promoteur dafa nekkoon nit ku nga xam ne daan dund làmb amoon écrit mu doon faas amoon mbër mu tuddoon ma Moustapha mu daan ko supporté daan sax ànd ak moom yóbbu na Tapha ci ay làmb ba tàyyi yaa ngi dégg kon defe naa ne kon moom Aziz boobu ba tey mu ngi ci milieu sport doonte nekkatul promoteur mais terewul mu ngi jàppale waa làmb di jàppale les sportifs di jàppale les promoteurs kon yaakaar naa loolu Majib Sène wax ci moom ci côté vraiment lu am am solo la Aziz Ndiaye ñu koy nuyu di ko ziar euh, combat bi nga xamante ni moo waroon a dox ci diggante ki nga xamante ni moo di Ndongo Lo ak Cheikh Tidiane Niang reporté jusqu'au 3 juillet parce que le 20 juin la waroon mhm. euh, te yaakaar naa ne mbay Yékini jëloon naa ko fi mu ne Fallou Ndiaye dafa war a tëgg le 20 juin mhm. te moom xalaatul mu mhm. moo tax mu yóbbu combat ba le 3 juillet loolu tamit mooy cër nit ki bu ngeen di ànd da ngeen ànd te yàlla tax cëralante kon yaakaar naa loolu mooy li am ndongoloo ak euh, ki nga xam ne mooy seeti yan ñaa combat bu nar a neex le 3 juillet yàlla nañ ko fekkete tal ko bi nuyu Mbaye Yékini bu baax a euh, xamante ni moo di Eumeu Sène fêter ma prochaine victoire en Gambie. waaw ça veut dire que maanaam jàpp na ne moom Gambie lay fas yéene fese victoire bii di ñëw. Mhm. ah waaw la mhm. mhm. a def moom faw mu daan faw mu leen sunu làmb indi ak li nga xamante ni moom moo nekkoon ak record mhm. euh, Babacar di nuyu yi nga xamante ñoo safa Equivox TV waaye di leen wax ne yéen jeeg ñi yéen ñi nga xamante ni bëgg lu baax day leen utiliser diwlin bi nga xamante ni moo di huile Jador vitamine A ba mu làmboo moo tax mu neex ma te ki nga xamante ni moo koy moom mu di Aziz njaay dafa dëkk ci réew mi boole kook defar réew mi man lool lay wax chaque jour ah waaw kon di ko ñaanal jàmm ndax sponsor lu ko waa jënde jar na ko ndax làmb ji mooy li baabakat di wax sport de chez nous la hmm. donc na sponsor yi ñëw sponsoriser làmb ji bu ko defee xale yi mën cee jariñu ñu mën cee jariñu ndax làmb ko dafa yaatu macha allah Abdou du ma la dagg mais damay am lu ma dugal foofu rek dafa naa tey mu ngi ci journaux yi mu Bala Diop mhm. di manager ak mag ja Pape Diop Boston mhm. nekkoon champion d'Afrique nekkoon mbër mu mag ci làmb ji mhm. ak seen rakk Mansour Diop depuis Italie ñoom ñëpp di suma ay papa du yaakaar naa ne dañu ñàkk seen wayjur wu jigéen ñu doon ko wax ajaratu noo koy mbay loolu amee démb ca Pikine kon ñu leen di jaal seen wayjur ñoom la boobu yépp ak képp ku nga xam ne ci askanu làmb nga bokk parce que tamit Pape Diop Boston yaakaar naa ne siggil na Sénégal dëgg la ci côté bëri mhm. ci jamono ci mu ciy toll ci ay Jeux olympiques ak ay champion d'Afrique yu mel ni ki noonu mhm. parce que yaakaar naa ne borom médaille sax lañ koy wooyee mhm. kon ça veut dire que am na lu mu wane si làmb kon daal suñu maam jooju yal na ko yàlla xaare aljana amiin amiin amiin mbay di wax tamit yal na ko ay doomam sut aw fan parce que nag ah neexul waaye wax dëgg yàlla mhm. ku sañ itam mhm. mënta ñàkk ba ña mënta ñàkk nga am at mhm. yi moom parce que quatre-vingt-douze ans euh, yombuta am yaa ngi dégg kon daal loolu la ñuy wax di jaale ay doomam yépp muy Boston muy Mansour Diop muy Paala Diop ak famille bi yépp waaw ak seen doom bu ñuy wax Pape Diop nekk fële ca Kër ma yàlla yàlla ko yàlla yërëm tamit maamam amiin amiin amiin waaw amiin amiin Babacar amiin loolu daal mooy tey li nga xam ne ni moom laay tëjee mhm. di ñaan yàlla yàlla yàlla na yàlla def jàmm Sénégal di balu ñëpp ak di wax gars yi rek ñu préparé wu weekend bi ku ne xam ne ne lamb yi nar na neex mhm. ndax Assane Ndiaye nga arène nationale dibee nga Ibamar Ibamar Diop jamaykee nga Gambie Gambie waaw loolu mooy am. kon yaay choisir. waaw yaay choisir fu la ci neex aw yow mi yor sa billet bëgg a seetaan. Ah, macha allah bu ñu ci jógee tamit le 19 juin. Mhm. di samedi ba cay topp. ku ne xam na ne événement bi benn lay doon. Mhm. arène nationale arène nationale Vox TV wala mhm. Vox Arena. ak combat yu mag yi fa am Tyson 2 franc Mama Lamine Garga 2. alliance biram caatu ngew caatu ngew Baye Mandione Junior ak Fourier waaw. Abdou di ñaanal ñëpp jàmm. Amin Babacar di wax kan Sénégal yàlla fi yàlla def jàmm. amin yaa rabbal alamin